dafay laaj ay machine nag yooyu. mais li ëpp ci seen panne lan la électronique bi. waaw gaa panne électronique en général di nga gis euh, ay euh, injecteur primo injecteur ay capteur léegi yow fi mu ne nii su fekkonte ni oto bi panne na panne électronique nan nga koy xamee. Euh, ni ma koy xamé toujours déjà bu mes panne amna na signaler sa tableau de bord bi que ni panne la moy check engine bi. waaw waaw toujours foo gisee check bool nga mëna a euh, machine nga branche, moy ordinateur da nga wa autocom bii mooy lunch. Mhm. waaw bii lunch la tudd moom tamit dafay servir pour diagnostic pour désactiver tamit ay témoins. ok kon bu fekkente ni lampe mu ngi tàkk ci tableau de bord bi. Mhm. signaler la ni la li. yow bala ngay def dara lan ngay njëkk def. waaw en fait balaa may def dara toujours man oto bi su ñëwee moom balaa ma si sa fa ma dinaa vérifier daal moteur bi ba pare comme vérifier sama niveau pour en cas ma taal indi créé yeneen problème ak affaire yooyu xool ndax am na huile xool ndox bi yëpp ba pare su boobaa ma jël sama machine dama branché. fan nga koy branché. ci biir oto bi lañ koy branché am na am na oto yoo xam te ni seen euh, kii wu bi day nekk fii. prise diagnostic bi day nekk fii si kaw moto bi comme mën na nekk ci biir oto bi. xoolal hmm. léegi toujours dañuy diagnostic ak ordinateur bi. waaw bii mooy Autocom. ok Autocom bii da ngay branché fee si oto bi. nga jël bi branché ko si ordinateur bi ñaari hmm. ordinateur la ñuy yokk. mais quant à bii moom Bluetooth rek lay doxee Bluetooth la ak oto bi. Hmm. dañuy waaw ñoom fu mu toll nii ñu ngi ok sax bultuf bi jarul ngay branché. mais léegi yow lan moo mm. lay orienté pour nga mën a xam ne yow fii ngay dugg pour xool paan bi. waaw c'est parce que toujours boo duggee si ordinateur bi. Mhm. li ngay njëkk def. Mhm. da ngay def euh, marque oto bi. waaw day njëkk euh, bind. ne mhm. bindee marque oto bi dina laaj type bi. nga def type oto bi comme bi Toyota A26 la. nga bind Toyota def A26. soo paree mu laaj la année oto nga def année oto bi. mu laaj la ndax essence la <clears throat> essence la wala diesel mooy énergie bi nga bind essence wala diesel si boobaa ne dina la laaj yow si euh, lan nga bugg a jëñe sigee su fekkee ni si moteur bi la mu laaj la ko su fekkee ni si carrosserie bi la ainsi de suite daal lu mu loo soxla rek moom ngay tapé boo tapé loolu

ci mécanique automobile mécanicien mënul liggéey té amul appareil du ma mënul liggéey té amul appareil dé mais la plupart mom pour nga liggéey mom il faut nga am say machine y a pas mal de gens yo xam te dañuy am ay problème électronique dañuy indi sen auto fi dañ koy liggéey ba mu baax sax nga gis ben check di tak wala yoy ñuy ñëw soxla ñu branché les machines wa wala yeen saa nga liggéey sa auto ba mu baax ngay dawal gis ni amul puissance du daw foofu tam il faut nga branché machine. mais yow léegi lan ngay digal mécanicien yi nga xamante ni amuñu appareil bi di lambaatu naan la lii la wala lii la. Euh, li may denk mooy euh, pour professeur kii bi nii professeur bi nii moom moom moom li am gënoon a am importance mooy suma ma ku si nekk ku ne au moins nga xaw a def nga def formation. donc boo ko defu sa instant bii nii ñu ne jàng du wees. donc mm-hmm. booy liggéey xëy di liggéey nga def benn cours si benn école technique. am na fi école yaay fii am ñoo xam te doon ngay dem sax doo fay dara gars yi nañ lay jàppale nga dem di jël ay cours surtout ngay jàng ak nouvelle génération bi oto yi nga xamante ne léegi yëpp électronique tout yëpp lu ñu fi indi lu nekk moom lay nekk kon mécanicien bi daal instant bi pour mu mën a def liggéeyam ni mu war a il faut mu jàng il faut sa part lii boo ko jàngul tam doo ko xam am ñoo xamante ne tamit gaa duñ jàng mais seen xel yàlla da leen di may ñoom boo leen woon machine benn ñaar rek nga xam ne ci nekk yëpp waaw en oh. général tamit damay gis mécanicien yi di jànkoonteeg problème yu doy waar ci électronique bi mm-hmm. des fois da ngay gis koo xamante ni day wàcce boîte à vitesse mm-hmm. changer disque embrayage ak plateau monté waat oto bi bañ a tàkk ah, mu diagnostiqué mu nekk ay injecteur mm-hmm. su ko defee borom oto bi nii la man bi koy indi oto bi mu ngi doon daw yéen genre problème yooyu nan ngeen ko dundee <laughs> wa gaar genre problème yooyu moom dafay am si cadre liggéey bi parce que ñu ne oto ak nit ñoo yem ñun mécanicien yi ay médecin la Mm-hmm. comme médecin yi nekk si hôpital nii ñun tam ay médecin lañu mm-hmm. waaw oto moom mooy nit tamit mm-hmm. xam nit moom da ngay jékki-jékki rek si jamono da ngay dégg diw dox na ba daanu dee ok merci mun na dal euh, oto bi jàngoro joo xamante ne boo ñu si woon boo ñëwee yow woo jàngoro boobu ñu fajal la ko beneen jàngoro nga wane ñu fajal jàngoro jooju ba pare beneen bi doog a génn nga ni mukk ba may ñëw lii dalu ma woon lii yee ma daloon nga indi problème yow lan moo ci dépannage bi nga xamante ni yow dépanné ko ko ci oto mu nekk dépannage bi la gën a neex le plus beau de tes dépannages. waaw mm. ah, loolu moom loolu moom fu mu toll nii moom du ma si mën a wax wax wax noonu. si côté mais am na. si waaw si côté moteur surtout ah, man xam naa ne am na benn moteur appareil lu mu ci doon mais am na. amoon naa fi benn oto boo xam te ne moom dafa amoon problème boîte. moom mm-hmm. amoon problème boîte. ñu ut boîte bi ut ko amuñu ko ñu ut ko amuñu ko léegi ñu ne nañ koy modifié ñu indi benn boîte fu ñu modifié ko. ñu ñu ñëw kuñ ko jox gars yi ñu ne lii ñoo bokk wala bokkul ñoo bokk wala bokkul mais xam naa comme que tamit ak jigéen rek mu ñëw mu leen leen def leen nii dañ ciy xaw a gis seen bopp ñu ne bokkul mais ba ma ñëwee monté sama boîte boîte boobu ba tey mooy daw sa oto bi loolu dafa li nga xam te ne dafa ma neex waaw li taxoon ñuy werante may leen def leen lii ñoom ñu bëgg a jël say idée te def naa ñëpp suñu nekkante xel du doy daal ku nekk da ngay da ngay dañuy sottante xalaat rek daal

ok <laughs> donc léegi kii il faut ngeen rectifier ko. Mm, waaw non damay changer fil brequin bi. da ngay changer fil brequin bi. léegi ay rectification yooyu kon peut-être xaw nañ ko dépassé tuuti. waaw dañ ko dépassé man moom man moom ay liggéey ah. ah la plupart moom comme que bu ñu am sur le marché. te taxu ko noonu war nañ ko mën a ut. kon léegi da ngay changer fil brequin bi ak lan. yi biel yi palier yi. cousine palier cousine belle waaw. moom la ñuy changé pompe à huile bi. waaw fekk ni dañ koy defal nga ñun toujours oto dañuy def ko dañ client dañ koy defal euh, ne nii dañ koy chiffré suñu tombee d' accord liñ ko wax ni bi si lañ koy commencé liggéey moo tax ngeen fekk ni mais damay gis li ëpp ci mécanicien yi yi defatuñ ko da juste ñu ni la demal jëndi ben moteur venant de France nga monté nga dem jëndi moteur venant de France ñoo teg ci. ma gis yeen ngeen démonté tas diagnostiqué génne panne bi. fas yéene ko défar waaw ñun noonu il faut ñu diagnostiqué xor réellement panne bi fa la nekk su fekkee lu ñuy défar la ñu défar ko su fekkee nag lu lo xam te kenn mënu ko défar la su boobaa la ñuy préféré changer moteur. merci Anna ñu ngi lay jaajëfal. chef de garage baa ngi nii électromécanicien la. bu ñu doon waxtaan tey ci électronique comme yow électronicien nga. yow lan ngay dénk ñi nga xamante ni ay mécanicien lañ di liggéey ci électronique bi bëri ci ay client te bëri na ci ñoo xamante ni dañ ciy def ay erreur parce que xamuñu ko yow lan nga leen di dénk. bon waaw loolu actuellement nii bëri na trop. bari na trop ci liggéey bi mais su fekkente ni yaa ngi jël oto oto boo xamante ni maîtriser woo ko wala minuloo électronique bi bon dangay ngay dem ci ñi nga xamante ni surtout borom oto yi dem ci ñi nga ñoom ñoo maîtriser yooyu ñoom ñoo maîtriser électronique parce que ñoom ñoo leen di mën a satisfaire ci seen i oto mais bu fekkee dañ ko jox koo xamante ni maîtriser wu ko day xaw a compliqué te ñi nga xamante ni maîtriser wuñ ko tamit war nañoo mën dem jàngi jiwaat parce que jàng bi du du weesu quoi du weesu man mi di wax ak yow amna lu bari lo xamanteni xamaguma ko te damay fasiyene jangi wat ko. Pascal fi ci LT automobile yow ya yor lepp lu jëm ci mbirum diagnostic bi auto bi mala fekk dafa melni dafa am problème électronique. lan mooy problème fi mu ne nii oto bi dafa am problème mu développement maanaam dina daw ba cent quarante waaye après cent quarante oto bi dafay perte puissance dootul daw. loolu panne électronique la wala panne mécanique la. loolu panne électronique la panne électronique la. mais naka ngay xamee ni panne électronique la. waaw fi mu ne nii. comme ñun LT dañuy liggéey ak appareil diagnostic la ñuy liggéey. Euh, appareil diagnostic. appareil diagnostic appareil bee gi kon kii lay àndal kii lay àndal par bluetooth lay doxee. ñoom ñaar ñooy ànd. ñoom ñaar ñooy ànd boo branché bi. waaw bu koy relier par bluetooth. ok su ko defee léegi mu indil la information. oto bi yëpp bépp boo gis bu électronique. Mhm. dafay am prise de diagnostic. branché nga ko. moom par bluetooth lay doxee. ok par bluetooth lay doxee. léegi ay ca recherchel sa paan mo xol da ngay def ni waaw branché. waaw mu sélectionné la auto oto yi yëpp. dafa am plusieurs marque de auto yi yëpp mi ngi ci. multimarque multimarque la. ok légui nga def sa sélection bu fekkee ci auto bi nga nek soit Peugeot la wala Citroën la wala Mercedes la. Mhm. té fi ak Mitsubishi lañuy jankontal jànkonteel. waaw da ngay def entrée sur Mitsubishi. ok mu laaj la Auto bi yep fi mu ne ni bu si nekk dafa am sa calculateur. Mhm. rajo bi dafa am calculateur am. Mhm. Euh, clim bi dafa am calculateur mooy mooy boîtier électronique. waaye mooy boîtier électronique. waaw calculateur lañ koy wax. waaw léegi ñun fi mu ne nii problème bi au niveau du moteur la ñu soxla. ok waaw donc si calculateur moteur bi laay dugg. Mhm. ma interroger ko nga def entrée. mu génne la calculateur moteur bi. waaw calculateur moteur bi défaut bu mu mënti am concernant sa problème daf la koy génneel. ok waaw fi mu ne nii fii daf ñu génneel ne. Mhm. tur boobu dafa am problème mu suralimentation. waaw suralimentation ñu ngi koy woowee que au delà de cent vingt wàcc si suuf. ok am na ñu koy woowee au delà de trois mille tours. Mhm. waaw pour mu ne nii bu oto bi bu dawee ba foofu. si mhm. lay perte puissance. léegi moom moo ñu dimbali de tele sorte que du ñu seet lenn dañuy jubal directement ci turbo bi pour xool lan moo tax oto bi perte puissance parce que turbo bi la ñu signalé ne après 120 turbo bi dafay perte puissance dootul daw. ok kon turbo bi li muy joxe normalement kon am na capteur buy jox information boîtier électronique bi maanaam mooy calculateur bi nga wax. calculateur bi ma wax. waaw dina ko def parce que fi mu ne nii. Mhm. tey jii turbo bi bu fekkoon dafa am panne mécanique. waaw. turbo bi yàqu moom si boppam mécaniquement mu yàqu. Mhm. ci capteur bi lay aw. parce que turbo bi dafa am corps boo xam ne c'est mécanique. Mhm. capteur du ko laal donc moom. bu yegsee foofu du la wax ne c'est euh, comme mhm. yegsi foofu si capteur bi lay yem. mun na la ne capteur bay yàqu. fekk turbo bi moo yàqu te turbo bi xam nga c'est mécanique. c'est pas électronique donc machine bi moom du àgg foofu. am na ci loo xam ne daal kon c'est mécanique. c'est mécanique mécanicien bi moo koy topp ba gis ko mécaniquement. ba gis ko mécaniquement. am loo xam ni électronicien bi moo koy xool ba topp ko ba gis ko électroniquement. électroniquement. Mhm. toujours damay gis ni léeg-léeg gars yi am na si ñoo xam ne dañuy à peu près panne am ñoo xam ne dañuy jël fil fas fii wala ñu jël lampe. Mhm. de témoignage. Mhm. takk fee takk fii pour xool. yow loolu nan nga ko jàngee ak lan ngay wax ñi koy def. daal lenn laay laa si mën a jàngat mooy. peut-être seen jang mo sorewul ci lolu parce que même tak lampe sonne fi sonne fi lolu lolu multimètre moo koy def. multimètre appareil buñ wax multimètre. amna appareil classique am digital. waaw mom ngay jël nga testé sonde li ngay sonde parce que capteur bu nek dafa am limu wara war ci courant ci voltage. Mhm. am do xamné ne waru ëpp warul wàññeeku ci courant. Hmm. lolu lañ wara am. mais waruñu jël. ay lampe de sondage yoo xamante ni source bi passé na six à cinq euh, volte te gars yi dañuy sondé ak douze volte jël lampe yooyu noonu laa ni yow lan nga ciy sensibiliser euh, sa mbokk électroniciens yi ak mbokk sa mbokk électriciens yi. li ma sensibiliser mooy ñu jàngiwaat parce que oto yi ñu ngi ñëw te dana gën a métti si ñu jàngul. waaw je dégg en général les petits pan électroniques électronique yi capteur capteurs yi dañu bëri Les wuute ak système vitamine, bi bobine d'allumage yi bëri injecteur essence am diesel capteur de pression absolue capteur de boîte à vitesse Et ainsi de suite capteur yooyu noonu lan la mën a def ci oto. waaw capteur boo ko boo ko déggee les day mouvement. wala muy lépp lu yëngu rek mu xam ndax mu ngi dox wala doxul mu détecté ko quoi mu xam ndax lii ni muy doxee baax na wala lu muy doxee baaxul léegi capteur si kaw loolu alimentation mun na ko def ndax moom moom si boppam capteur bi ñuy tudd ndax courant bi ñu koy jox ndax baax na ndax fi mu tegu ndax baax na loolu lépp def si am solo waaw waaye capteur nag dañoo bari te ute mais capteur daal di maanaam ci niñ ko déggee hmm. moom mooy jox calculateur bi information. pour calculateur bi mën a réagir. réagir waaye léegi capteur moomu noonu. yan paan moo ëpp ci li capteur di def. paan bi paan yëpp yi capteur yi def mooy comme par exemple. bu fekkee lu gën a terre à terre laa expliqué comme si démarrage. waaw capteur ñaar ñaar ko si démarrage. Mhm. mooy capteur Arbacam ak capteur Vilebrequin bi. ñoom ñaar tey jii rek seen position bu baaxulee rek oto bi mën na bañ a démarrer normalement. ok waaw. léeg-léeg ma dégg tamit ci injecteur. injecteur yi ay électromagnétique lañ. ma gis li muy am problème bari na. ak système d'allumage bi tamit li muy am problème bari na ci bobini bobini bobine yi am na monopoint am na multipoint. mooy ñeenti bobine yi ànd. am na yoo xam ne par benn benn la. am yoo xamante ni euh, ci capteur yi tamit. am na ci capteur yoo xamante ni dafa bari problème. ma am yu ma gis yoo xamante ni euh, teg nga ko ci table bi su ma la doon laaj tey kii moom mooy bobine d'allumage mais kii point la kaat yi ñoo ànd. ma gis ni quatre bougies lay jox. waaw cylindre la waaw léegi kii su fekkee am na problème. Mhm. ban danger la mën a indi ci oto bi. waaw fi mu ne nii bu fekkee dafa am problème. Mhm. oto bi mën nga am mhm. régime normal. waaw soit muy raté. waaw wala ngay consommé. carburant bi. parce que fi mu ne nii moom moom mooy jox euh, boobu bougie courant. donc bougie bu ñu amul alimentation normal dañoo am tendance di di compenser li euh, li injecté comme par exemple moom bu doxulee normalement. injecteur bi da koy jéem a compenser. waaw te boobaa da ngay bëgg di carburé di lakk essence bu bëri. pour effacer. pour effacer lii lii di. di voilà effacement effacement rendement bi. lii bobine bi naroon li bobine bi naroon liggéey. waaw moom day ñëw effacer ko. effacer ko di ko jéem a léegi bu ko fekk nag essence bi di jeex te doo am régime normal hmm. waaw noonu lay doxee. ok mais moom mënul am problème oto bi bañ a tàkk. mun na ko def sax. Ah. mun na ko def laa bu fekkee moom dafa taxaw mu bañ a tàkk. waaw waaw mais bu fekkee da nga am soit benn bu bu doxul mun nay doxee trois cylindres wala ñaari doxul muy doxee deux cylindres même ba deux cylindres sax am na noo am na nu muy demee oto bi du tàkk. yow kook bu ko defoon noo koy xamee. ma jël appareil sama appareil diagnostic rek. mais am na loo xamante ne appareil du ko gis. waaw parce que xam nga kii c'est électronique. waaw waaw mi ngi nii dafa am alimentation. ok waaw. kon daal kii ay paanam kenn du ko à près. kenn du ko à près. lépp loo gis rek dafa am li koy liggéey dafa am boo soxlaa kii boo ko boo boo jëlee multimètre nga xam ndax courant bi muy bi muy dugal ak bi muy génne lépp di nga ko xam moom dina la ko wax tey fi mu nii bu par exemple kii bu fekkoon douze lay génnee wala mu ne zéro muy génnee zéro virgule cinq boo si defee douze mën na ko lakk. nga sondi ko mun na ko lakk waaw loolu ma gis fii beneen capteur mhm. capteur bi waaw kii capteur lan la waaw kii capteur bi ci boîte à vitesse automatique la nekk ok boîte à vitesse ah, automatique yi léegi sont électronisés moom fi mu ne nii kii moom mooy détecter mouvement wu buté bi ok bi nekk si biir boîte bi moom mooy détecter mouvement bi buté bi mouvement bi muy am di bës embrayage bi. ki moo koy détecté. bu jotee information bi jox ko calculateur jox ko calculateur bi. ndax daanaka tey jii nii bu fekkoon kii bi buté bi dafa am problème. Mhm. vitesse bi muy dox par rapport ak buté bi. bu fekkee dafa yéex. fekkee dafa yéex par rapport comme par exemple buté bi amoon problème. Mhm. bu amee retard da koy informer calculateur bi. vitesse si dootul dugg normalement comme disque bu yàqu. wala embrayage su am problème. mais est-ce que benn bi moo nekk moom rek moo nekk ci biir boîte bi par rapport ak biti hydraulique bi. kon daal yow machine bi da lay ni la. moom daal lépp loo li mooy problème bi li moo si nekk. ma gis ah. fii tamit injecteur. bi mhm. dafa mel ni bu essence la. waaw bi essence la waaw. bu essence la waaw bu 307 essence la. waaw mais injecteur bi moom. Mhm. dama gis ni. c'est électronisé. waaw c'est électronisé waaw. waaw mais léegi kii moom it bu amee problème noo ko mën a xamee. waaw moom ci calculateur bi koy commandé. Hmm. moo koy wax informé li muy joxe si essence. waaw daf ko war a régulariser waru ëpp warul manqué. ban information lay jot ba déclenché kii. kii hmm. lépp si calculateur bi lay jógee. waaw mais calculateur bi kan moo koy jox information pour mu mën a excité kii. waaw calculateur bi mooy carte mère bi. lolu euh, dafa am air mhm. euh, euh bobine allumage bi waaw ak quantité d'air bi dugg ci comme ni nga ko waxee sànq bu jàllee bu jàllee amna capteur bu koy capté capteur de de pression absolue absolue moko jox information mu ne ko lii nga wara verser ci carburant comme bobine bi li lañuy jox ci courant safara bi ni lay tollu donc ki ñom ñep dañu wara and nek ku nekk ak li ngay joxe ci carburant ci ci sa wàll li ngay andi. donc kon capteur bi bu yóbboo information. Mhm. information boobu ci la calculateur bi di basé wu. Mhm. pour mën a ubbi nombre de essence boobu noonu. bi injecteur bi war a joxe. Ah. donc injecteur mi moom bu fekkee am na problème. Mhm. lan la mën a def oto bi. mooy comme ay raté ay raté d'allumage day def. di raté di di féqu doo am régime normal loolu la injecteur bi mën a def. mais loolu est-ce que bu salté tamit du ko def. waaw ak carburant bi bu fekkee dafa am problème. Mhm. salté bi nga xam ne filtre à essence bi da ko bàyyi mu jàll. lépp si moom lay aw bu ko dootul dox. grain de sable xaju fa de sable sax xaju si moom noonu lay doxee. Pascal ñu ngi lay jaajëfal. di leen gërëm di leen sant rek. ndax fi mu ne nii ñoom lii dina tax ñi nga xam ne sax xamuñu li dara ci mécanique ñu xam oto yi nu muy doxee daal. parce que fi mu ne nii leen daal laay wax sama mbokk mécaniciens yi mooy même ñun ñi nga xam ne sax am na lu ñu am na lu am nañ tuuti xam-xam ci oto yi ñun dañu war a jàngiwaat parce que fi mu ne nii mécanique bi toll na foo xam ne moom avancé na avancé boo xam ne moom. technologie bi dafa avancé dafa avancé bu baax daal loolu daal laa amoon lu may wax. doon laaj boo doon daw ba gis sa muy tàkk. lan nga war a def. waaw ah, c'est boo dee daw ba gis sa lampe huile tàkk ci boppam da war a droité wala station boo njëkk jot bu fekkee da ngaa dafa tombé station nga dugg ci station ñu contrôler la huile bi ba xam am na huile wala amul huile wala dafa am fit li nga war a njëkk def mooy nga fay oto bi nga fay oto bi taxaw boo taxawee droit daf fay oto bi après boo fayee nga xool ba xam ndax oto bi am na huile premier chose fekkee amul huile nga xool. nga def sa huile xool ba xam. signalé droité vérifié xool ba xam lan moo tax muy tàkk te dafa manqué huile wala déet parce que il faut nga droit signalé droité fay moteur bi jël sa sosa huile dugal génn ko xool ba xam. la première précaution à prendre mooy lan nga serré fay sa moteur ubbi sa moteur vérifier le niveau d'huile bu niveau d'huile bu baaxee nga xam ne que am nga problème mécanique. en cas lool moom fu amee rek xamal problème moteur la bu fekkee am na huile xayrul boo amul huile nga dem jëndi huile continuer matal sa niveau bu niveau bi matee nga taal bu bu fayee nga continuer bu fayewul na nga dem woo sa mécanicien. su doon laaj tey ci oto buy daw ba gis tableau de bord bi lampe huile bi tàkk. Mhm. lan la war a def. danga nga war a couper moteur bi ñëw sonde sa huile. boo sondee huile bi bu fekkee huile bi mat na dafa am coulage dafa couler am na coulage bi nga xam ni mën nga couler lampe huile bi tàkk noonu mën na nekk problème mu mano mën na nekk problème coulage su ligne bi su ligne bi ku si ne biel bi su lekk wala ku si ne pali bi rek dafa war a signal lampe pour témoignage la rek pour li mooy waral ni huile bi graisseetul lampe huile su tàkkee. waaw kon daal lampe huile moom fu ñu ko gisee rek ci saa si dañu war a taxaw. da nga war a arrêté moteur bi. da war a arrêté moteur bi ñoo sondé huile bi su huile bi manqué su huile bi manqué nga complété bu fekkee manqué wul am na coulé na waaw bu fekkee lampe yu tàkk na te moteur bi amul bruit euh, am na fil bi mën na am masse mais da nga war a xool d'abord li nga war a njëkk a def mooy da nga war a rocc ci euh, fil bi nga war a rocc ci mano huile bi sonde xool euh, xool témoignage bi ba xam mi ngi dox su fekkee témoignage mi ngi dox nga montaat mu kon ne tàkk kon oto bi am na problème mu ligne. ok léegi daal ci gàttal. Mhm. lampe huile moom fu mu tàkkee rek mooy graissé wul. waaw graissé wul wala mu am masse lampe huile automatiquement su tàkkee su fekkee moteur bi amul bruit. Hmm. su fekkee moteur bi amul bruit amul coulage. da nga war a xool sa mane ba xam fil bu tegul masse bu fekkee fil bu tegu na masse nga vérifier sa cartouche à huile xool. yow boo doon jauger moteur bii tey mhm. jauger à huile am fu mu nekk. Those are your bu ñëwee fan bu ñëwee fan lay nivoté. Ya ya minimum maximum. maximum. Fi moy moy minimum. Wa, ça veut dire mën nga ci daw mais ah, avec sécurité. avec sécurité Fi moom prudence dal. Fi bu fi tolloo rek daw nga wara xol sa huile am nga fi d'huile. Mhm. wala moteur ba nga lek huile. Légui bo son légui sondel ma xol ki amna huile. Wa, amna na huile. sondeel moom fu mu nekk. moom dafa passé minimum bi touti minimum waaw. passé na minimum bi touti mais agul maximum. agul maximum mais li. li wóor daal mooy mu ñëw maximum. oto bi dans les normes bu bu demee ba bii dans am jot. waaw war na daw tuuti. tuuti la war a wàcc. mais su accès fii rek oto bi am na fii diw loolu ngi lekk huile. mais daal kii ci yoon. Mhm. ku ko ku borom oto bu ko mën. xam nga am na seulement voiture yoo xam dañuy xëy rek taal dem. mais ku ko mën daal boo xëyee. war nga mën a ndox. waaw war nga génne jauge bi xool ndax am na huile. ñaar yooyu da nga war a siiw. huile ak ndox. ndox parce que moom mooy. plus important Li, li, mooy refroidir moteur bi li mooy yor graissage moteur bi. moom ku yor oto moom bëgg a sàmm sa oto fan ñaar yooyu da nga ko war à tout moment. Ken kenn ko koo Ken kenn du ko sooxaale kenn du ko sooxaale. très sincèrement. jërëjëf kon bu ñu doon wax tey ci fi ñuy sole huile bi. Mhm. kon fii mooy solukaay huile bi. bouchon baa ngi bouchon bi mini. ngi nii. bouchon ah, bi mooy solukaay huile. waaw bouchon waaw solo solukaay huile bi. Wa waaw léegi bouchon bi. Mhm li ci nek ni mom mo lay wone ni la. lampe huile ba ca tableau de bord ba. ni lay mel la lay signaler ni lay mel la lay signaler hmm. voilà. may fàttali rek sama mbokk mécanicien yeb di len wax ni sen mbokk mécanicien mu ngi fii sur la DTV di yeungu ci émission les pendant l'automobile di remercier mécanicien Sénégal yeb ak kep ku nek ci métier di nuyu walé wa pigine fa deuk di nuyu sama papa Baye Demba sek mom propre référence mom mi ma le métier émission comme nous le koy toujours cette émission est donc un moyen de faire connaître au public les pannes automobiles et les véritables techniciens d'aujourd'hui compétents pour leur réparation. la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Production présente Eddie Kenzo à Dakar le samedi 23 juillet sur l'esplanade du 6S. Guest star, Bidéo Boubès, Arlubric Paradise, BS Major, Jamirou. Ouverture des portes à 21h, prévente saint 000 Sur place, 10 000 rec. Infoline 77 872 61 20. tamara vamatane sipata lekanzine nenzina mumama mulamu bwa kiseera